jërë ngeen jëf yéen ñi tàmmu dakarnet.com n'oubliez pas de vous pour que ngeen mën di jot suñuy vidéo yi saa su nekk ñu indi lenn xibaar bi euh, fële ca Zac Mbao une saisie record ci wàllu xeex lii di faux billets waa brigade de recherche teg nañu loxo lu toll ci juróom benn nit fële ca Zac Mbao fekk nañ ci ñoom nag ci ay faux lu toll ci 1500 milliards xaalis bi nag ñu ngi ko paqueté woon ci ñetti paquet yoo xam ne ñu ngi def cinquante millions euros benn paquet boo xam ne mi ngi toll ci un milliard ak benn paquet boo xam ne neuf cent millions moo nekk ci biir lépp nag bi biñ ko xaymaa mi ngi toll ci deux milliards ci ay euros ginnaaw xaalis bi nag fekk nañ ci ñoom matériel boo xam ne moom lañ doon utiliser pour di ci defar faux billets yooyu gang bi nag dafa am benn cerveau un certain monsieur Fall moo doon dugal coupure yi fii ci Sénégal de manière frauduleuse su ko indee ba pare nag yeneen gars yi ñoo doon lijjanti clients yi ak techniciens yu ko doon defar waaye nag mbir moomu bi mu jibee dañ cee tudd ay kilifa kilifa yi nag ay kilifa politique lañ kii di Pape Diop di maire de Dakar ancien maire de Dakar ak ancien président du Sénat ak kii di Farba Senghor di ancien ministre ñoom nag ñu ko yégee bi ñu suñu mbokk journaliste yi jokkoo ak ñoom kii di Pape Diop nee na il est meurtri et choqué ndax moom xamut loolu te mu ngi koy doog di dégg maanaam mbir mi da ko dikkee kaw kii di far ba Senghor nag moom bi ko suñ mbokk journaliste laajee nee na moom sax dafa xamul sax koo xam ne tudd na Daouda Ndiaye mbir mi nag mi ci loxo yi gendarmerie jamono ji l'enquête bi ñu ngi continuer di wéy pour que ñu mën a xam mbir moomu noonu ñan ñoo ci taq ak ñan ñoo ci taqul ndax dafa mel ni mbir mi gën naa yaatu loolu noonu ginnaaw bañ fi doon tudd ay mbirum phobie ci ay député ñoom bu Bougazelli jamono ji nag beneen mbir xew mu mel ni Sénégal moom mbirum phobie dafay lëmbee jamono ji